ASC Notaire salam salaamaaleykum ASC Jamono 2 donc euh, mu nek ñaari ASC yi nga xamanteni ni fi ci zone 4 euh, zone 2 bu Guédiawaye mu nek ñaari ASC yi nga xamanteni ñom ñoo finalu mëna nañu ñoo nekk ñaari ASC les meilleurs qui représenté zone 2 bi nga xam moy zone 2 bu Guédiawaye ñu wara a jouer benn final boo xam final historique la parce que c'est la première fois ñu dajé ñom ñaar mu nek ASC Notaire à ma droite ak ASC euh, Jamono 2 à ma gauche représenté par leur dirigeant à ma droite nous ngi fi ak euh, Pape le président di président commission ASC jamono 2 fii ñu ngi fi ak monsieur Mbaye Diagne di un des dirigeants de ASC euh, notaire donc ñu ñëwoon fii tey ci stade Amadou Barry mu war a finale final bi nga samedi le 22 lay am fii si ñaari ASC comme ni ma ko waxoon rek ASC notaire nekk na ASC bi nga xam ne daaw champion euh, zone bi donc pour la deuxième fois tamit ñu en 2017 nekkaat tamit en 2018 nous a gisewaat beneen deuxième finale successive ñëw war a tasante ki nga xam te ñoo ASC jamono 2 bi nga xam te mën nañ jàpp ne 21 ans ñu ngi nii tamit toog nañ jëluñu coupe donc mu war a nekk ñaari mu nekk ñaari final bi nga xamante ni final bu metti la ci ñaari ASC yi parce que c'est la première fois ñu daje pare nekk ASC yi nga xamante ni benn tali moo leen séparé donc mën nañ jàpp ne derby la aussi classico la parce que tamit football bu rafet bi nga xamante wane nañ ko ren ci zone 2 donc ñu bàyyi euh, ñaari ASC yi comme ASC jamono ki euh, notaire représenté par Mbaye Diagne def présentation aussi si donc monsieur Diagne ñu ngi euh, merci ñu ngi lay fay Cissé. donc euh, euh, info. si liguey bi nga vous ñu ngi koy def parce que li vraiment gis war nga ko rafet gis war nga ko war nga ko bu baax am solo la parce que sport pratique, vraiment baax mais am vulgariser am presse daf ci am solo te gis nañ liggéey bi ngeen di liggéey ñu ngi ñaan yàlla defal leen sutura ba li ngeen xam ne moom ngeen séntu am télé am maison radio bu dynamique yàlla def ko muy njëriñu sportif yëpp sportifu Guédiawaye man nag maa ngi tudd mbay Diagne Ndiaye donc euh, bon mille et une fois secrétaire général de l'ASC Notaire ancien président de l'ASC Notaire donc euh, dama dellu si ren jàppale xale yi quoi parce que bon xawoon nañu tumuraanke tuuti mag bu ñëw seen ginnaaw bon dama ne ren sax duma japp mais biñ démé ba xaw affaire xaw am difficulté touti mhm. si la baye sumay activité ñew gungé ci xalé yi quoi wa motax ngeen gis ma ci activité yi ren stade bi yépp gungé si xalé yi rek motax tax mu ñëw monsieur Diagne ren ngeen nek euh, ñew deuxième fois final mu nek année six donc joué ngeen quelques matchs fi ci stade bi donc est ce que mën nga ñu def benn résumé ni ngeen def beeg si final waaw on am nañ on a eu un championnat extrêmement difficile hein, parce que difficulté weesuwul nga avons barrage quoi barrage, parce que nous def benn euh, trois matchs de championnat deux défaites benn victoire ñu dem barrage mais comme on dit nous ki da bonifié wu avons barrage l'équipe s'est bonifiée ñu commencé retrouver nos marques donc nous avons gagné barrage ça a été un déclic L'équipe a gagné barrage dem demi quart de finale Darou daaru gagné ko demi-finale un match héroïque les joueurs ont terminé le match à neuf ñafe ko égaliser dem série gagné sanc bi donc euh, yoon bu difficile la quoi yoon bu difficile vraiment euh, boo koy comparer 98 avec le huit rek la la ñu xaw bu nga xam ne méttee na nii quoi euh, départemental et régional mm-hmm. voilà donc tey petit résumé wax nga ko donc nek na équipe bi nga xamanteni japp jàpp nañ dafa monter en puissance mm-hmm. parce que bu ñu xoolee match ba ni ngeen ñëwee en finale donc ngeen jëm na ci ben match bi nga xamanteni ni ngeen ak ben adversaire bi nga xamanteni ni mën nañ japp ne parce que nous nañ 21 ans. Mhm. donc là nous tax si mu nekk nous dëkkandoo yéen naka ngeen préparé monsieur Bobo. avant tout nous euh, féliciter jamono de hein, parce que quand même début championnat bi si équipe bien, nga xam ne ñëpp gisoon nañ ne war na la bokkoon. et puis ils ont vraiment tenu promesse ñëw nañ ba final dañ ko méritant, hein, ils ont cette équipe là ça il faut être honnête et le reconnaître donc nous ngi leen féliciter ñaan yàlla mu c'est vrai que l'équipe bu est en finale moy ëpp motivation équipe bi nga xamantene ne jël nga ko daawaati jéeg jël ko daaw ñom motivation boobu dañ koy am maintenant da nga ñafe nak parce que final bien vrai que euh, on dit ça ne se joue pas ça se gagne waaw da ngay ñëw pour gagner ko waaw dina metti ce sera pas un match euh, facile mais sunu dëkkandoo lañu et puis yalla def euh, Pape mort suma jarbat la ñu sék lu bari quoi vraiment en dehors du sport donc euh, buñ fa nekkee ñu nekk fi mom muy yëngu fofu dama ko yéene li mom xam ko bien vrai que yag nañ ci souf mais depuis début d'année yéné na ko mu final sincèrement lool mom mom mi duma démentir quoi donc euh, yéné la li ñëw na nañ ko jouer dans le fair play et que le meilleur gagne ñu xamné ne jamono parce que notaire bo xolé si jamono la génne hein waaw bo xolé ben partie notaire lé bla sax ñi gën a approprié aux notaire 91 lañ carrément pire notaire parce que si on jamono lañ faral pour nous. ñaari et puis mu dirigeants yu y yu nekk jamono qui xam encadré ku grands il faut le reconnaître vraiment Nous dans une zone 3 nous nekk un jeune délégué donc mu une zone 3 nous nekk ak moment sec, Mamar l'actuel président qui était dynamique bobu gëna tang ni sax légui dama koy xol man leen yus dafa sedd quoi <laughs> donc ñu amone ay collaboration yu bëri parce que bobu bon ñun dañ doon xaw a essayer zone 3 yenen zone yi ñoo ëppoon ñoo gënoon far mais ñun nak jamono yag nañ bok dal di xex quoi donc final bi dañ koy tek ci fair play rek quoi vraiment ku ku ku mën gagner fi ñu xamné ça c'est la loi du sport ñu ànd dem départemental xam nga ñafeko ñaanat yalla équipe bi l'équipe départementale pour zone bi gëna deuguer quoi. voilà donc euh, mu nek explication yi leer hein. hmm. parce que aussi bu ñëw ci côté équipe bi parce que dañu gis ni équipe bi. Hmm. bo xolé majeure partie bi ay cadet lañ en 2015. Hmm, cadet bi nékkon champion euh, zonal bi. je pense que vous ngoo ñëwaat carte euh, finaliste fi donc est ce que vous lu ngeen préparé non sincèrement quand même pour dire la vérité ah. notaire dafa changer dafa changer stratégie. bon après moi quoi bima États-Unis quoi parce que nous avons une base dem compléter ji lolu mode stratégie notaire mhm. mais il s'est trouvé que ces dernières années ci mhm. notaire day dem jëli ay à l'étranger mhm. donc euh, on a été victime de cela reine de bien parce que en fait équipe bu presque 900 sont partis avec l'entraîneur maintenant il fallait reconstruire mais lo gis rek bon il y a boo yàggee si ba si teen rek baak fek la fa booy yi départ bi y avait un problème de confiance mhm. qui se posait mhm. mais biñi dem au fur et à mesure ñu xam ñom ñoom ñoo fi nek mhm. keneen new fi ils sont explosés et wane ni ñom ils étaient dignes en 2015 des champions zonales wa donc boy yooyu tay di ñom ñoo dëkk ci quartier bi di ñafé pour dire encore une fois nawetaan affaire koñ la wa il faudrait xam nga privilégier xam nga euh, les talents locaux boy xam ñoo fi nekk nga may leen chance ñu football exporter bi baax mën nga dem nag loo manqué li si ay ligne nga jël ko mm. waaw mais jël équipe bi jël neuf wala 10 personnes yoo xam ne dëkkuñu fi mm. le sentiment sax d' appartenance day wàññeeku mm-hmm. alors que nawetaan loolu daf si am solo boo gisee boy yi bi ñuy football contre Santhiou bi mm. seen xol lañ si teg def si seen jom def si seen lépp parce que xam nañu seen quartier mm-hmm. bu ñibbee day lëndëm mm-hmm. nit ñi dañuy teel a tëdd ñu xam loolu fexe réveillé wu ñafe donc maa ngi ñaas samay nattango dirigeant yëpp mhm. aspect boobu ñu koy bàyyi am na solo lool di jël base jeunes yi nekk ci quartier bi mhm. jox leen seen chance mhm. ñu tàggat seen bopp mun a exploser. am na solo donc ñu ñëwaat ko ci dispositif final bi mooy ngay tasanteeg ASC bi nga xam te ne jàpp naa ni xam nga leen parce que c'est dëkkandoo la donc yow boo amoon tey looy wax ASC boobu ci question bi ngeen xam ak ñàkk ba ñu xam ne naka ngay gisee seen ASC jamono 2 ren. Euh, par exemple mën nga repriser waat question yi s'il vous bi nga xamante ne mën ngeen a jàpp na ne xamante ngeen xamante leen. waaw est ce xam nga ne ASC bi ngeen waaw jamono moom xam nga une grande ASC doo ko xeeb. Mm-hmm. ASC boo xam ne daanaka yow si moom nga juddoo. bon màgganum jinne toujours day desam ngalaju quoi. waaw te ku la njëkk a yeewu moom xam nga moom moo lay wax ngay kii donc ñoom ay ay jeunes fa nekk. Mm-hmm. mais quand même nawetaan daa xam ne bu fa tolloo mag ñi dañuy jóg mooy final. Mm-hmm. donc doo leen xeeb. parce que lo am chance au final parce que final tamit chance la rek année yi nga régulier du final c'est des chances lolou bo nago mais ñu wan la sen bop donc nous len xeeb ci dara gëj nañ finaalu parce que ku nous a finaalu ñëwaat le contexte bu difficile bi boko xewé xeebee yaa lu mëna lak waaw donc euh, ñu ngi len di jël au sérieux c'est une très grande équipe waaw une équipe mom c'est pas simplement la qualité ou bien le talent de ces joueurs mais les dirigeants xam nga seen capacité mën a régler dafa am solo si équipe te équipe bu mag la bàyyi ko xel dafa baax quoi. Mhm. donc mu ne euh, donc benn question bu mujj bi ma xam moom laa koy poser rek. mooy que ni yaakaar naa ni d' après information yi ñu dégg. Mhm. que ni ASC jamono 2 ASC euh, notaire du moins. Mhm. dañu am ñi nga xamante ni benn loi bu ñu tëral foofu. mooy ci côté tiset yi ñuy defar. il paraît que dañ dem police sax déposer benn plainte pour kuy defar tiset ñu mën a porter la plainte affaire yooyu est ce que loolu jàppale loolu c' est un peu exagéré. mais si sa yow da nga garaaw de loolu ku la ko wax. <laughs> non en fait en fait c'est vrai bon personnellement man sax m'a m'a parce que bon xam nga équipe dafa difficile Bo yorul ASC do xam wala nga nek si xam les dépenses yi nga xam Vous dirigeant yi di jankantol. Té bo une équipe Vous ça tourne autour de 7 ou cinq at least dix bonne volonté ñoo jël seen moyens di ko mais quartier rarement les nous suivre. Te bougnis suivre ça, c'est hamgo à 2 ou 3% du budget d'un grand nombre l'équipe des dépenses. Mais bougnis est bon final, mais bougnis contribue ou, mais en gréal, n'importe quelle équipe wut ay ressources si li nga xam da koy jaay par le biais de la finale moy t-shirt yi gadget yi pour mën a encore keesu équipe bi permettre ñi nga xam ñoy ñoy jël sen alal di def noy touti sen poche yi noy waaw lu aspect bobu rek la ci gis bu doon tay équipe bi dafa amone caisse bo xam dafa fess dell ak ah wala ay ASC bi ñëpp di participer comme nous waré sur le plan financier wala tay nga amone ay t-shirt diko ko jaay ñëw équipe bi kat man maay préfinancé dina défar t-shirt print ko jaay ko mais buñ ko jaayé dañ la jox 25% recette yi on peut être d'accord là-dessus mais duñu nangu nit jógee feulé équipe bi ñafé créer des conditions ba équipe bi dem final mhm. nga ñëw bëgg am profit bo xamné équipe bi duko ko am loolu sàcc lay nek fruit la donc duñ ko nangul kenn quoi ñu bal ma nak mhm. bon ça peut paraître un peu difficilement acceptable mais mhm. logiquement loolu kuy xalat war na xam li ñu wax dëgg lu quoi. voilà logiquement kuy xalat dëgg la donc mu nekkoon euh, un des dirigeants wu ASC notaire donc mu nekk ASC bi nga xamante comme ni mu ko waxee rek mën na jàpp ne kon ASC bu mag la parce que ASC bi nga xamante nekk na daaw champion zonal bi ci zone 2 donc ren aussi ñëwaat nekkaat final donc loolu mën nañ jàpp ne ASC bu mag la mais nag ñi ngi jàkkoonteel tamit ASC bi nga xamante ne ASC jamono 2 mu nekk ASC bi nga xam mën nañ jàpp ne tamit ASC bu populaire la ASC bu populaire fii ci zone 2 ci popularité mën na mën nañ jàpp ne moo ko exil ak équipe bi nga xamante ni mën nañ jàpp ne tel il fait partie des meilleurs yi nga xam te nekk ci zone 2 mu ñëw final donc euh, représenté fi par Pape Mor di président comité sportif Il va ko mu def ben présentation Pape Mor Nous ñi ah, ngi leen nuyu monsieur Cissé euh, di nuyu euh, représentant Aïssa Notaire muy sama ndijaay di sama Moussa Mbaye Ndiaye Ndiaye un des doyens du mouvement euh, mu nek honneur ma bokk mom tay ji plateau ñi nga xamni ñoo formé mouvement Néotan, depuis 1998 mu nek zone 4 A Euh, moom mu nga xam ne dirigeant bu engage la euh, moom moom rek laa doon gis si raar dirigeant yoo xam ne bu ñu doon seen équipe dañu ñoon jooy def na ko sama kanam fii c'était en 2003 ba leen jàpp Sam Dóoree 2-0 jooy na euh, tout récemment en 2015 ba leen Daaru Salaam Dóoree notaire boobu mi ngi États-Unis jooy na sama kanam di ko nuyu di ko delloo wàcc waayam donc Pa Mor nga jëm ci benn euh, final mën nañ ne mu nekk final bu nga xamante ni jàpp nañ final bu nar metti la parce que tamit euh, am na parcours bu ngeen def muy ASC jamono de mën nañ jàpp ne ren benn defet am ci seen parcours pour le moment nii donc mën nañ jàpp ne kon aussi ASC bu mag la donc yu mën est mën nañu defal petit résumé seen parcours bi ngeen def ba nga yegg si final waaw euh, def nañ parcours bu metti nag quoi parce boo xoolee formule bi waa zone indi dafa métti quoi parce que 3 match rek euh, mu mu mu loolu li nga xam ne année précédente yi loolu ñu ni 5 match waaw mu nekk ay match yoo xam ne ay match qualification la ñu bokk ñu nekk poule bu relevé ay sa amoo 456 mu nekk match bi nga xam ne c'est un match de derby match bi nga xam ne da ñëw gagné ko la gël tàppe xam ne euh, mosuloon dóor ay sa jamono 2 nekk tamit équipe boo nga xam ne wane taxawaayam si zone euh, yi yu ñu génn yëpp dafa final woon ak Gonay Lamine équipe bu baax ren nañ am euh, ay jeunes yu waaw ñu génn si deux victoires ak benn défaite défaite bi euh, kii moo ñu ko infligé euh, ay sa Gueule Tapée 2 mu nekk défaite bi nga xam ni moo tax sax tey ñu yegg fii parce que si biir défaite boobu lañ préparé defaru ba egg si fii nii tey ji ñëwaat quart de finale dajeeg suñuy suñuy voisin ay sa jaxaay moom mi nga xam ne trois victoires la génnee ñëpp defoon ko favori zone bi ñëw ñu gisee moom match bu métti disputé ak moom match bu métti gagné ko sur le terrain mu toppaat ñu affaire côté administratif suñu borom ñu su ndam ñu génnaat daje xale cité mu nekkaat suñu yeneen voisin jamono 2 dafa bëri ay derby quoi parce que euh, ay ses voisines yëpp ku dajeek ñun rek dañuy da nga koy def derby même gone Lamine Sarr ba ñuy jéeg moom dafa mel ni woon final régional lay joué mais alhamdulilah suñu borom bi dara tëwul euh, def nañu egg final. di ko donc ngeen ñëw ba final léegi yéen yéen yan difficulté ngeen ñëwee final yan bon. amuñu woon difficulté majeure à part euh, masse yi nu ñu doon nu ñu doon boo xoolee ay si jamono de euh, dépense quotidienne dafa metti quoi joxe paas fii te boo toogee boo gérer tey di nga ay plus de jours doog a difficulté yooyu rek lañ ci mais amoon na ci effectif bu baax ñi ngi normalement alhamdulilah quartier bi yëpp suudewu nañ te nekk suñu ginnaaw. donc euh, jàpp côté boobu dina ci xam lu bari moy ci côté li ngeen def ci recrutement parce que gis nañu ASC Jamono de 98 pour du yëpp ñu ASC Jamono de def ngeen recrutement yu baax machallah donc est ce que ci côté boobu aussi mën nga ñu ci wax dara côté recrutement bi. non bo xolé effectif bi euh bo xolé plus de 50 ci équipe ci si quartier bi lañu dëkk euh dañoo dañoo garder ossature équipe bu bi plus de 60 pour ngi fi waat. après tam ñu dem def ay recrutement ak en Casamance euh, benn la équipe bu champion national année 2017. am nañ fa quelques jours ak yeneen ak yeneen quoi. voilà ngeen toog 21 ans jëlu leen coupe Pape Mor Laye loolu nan lay def nan la méttee. bon toog nañ 21 ans jëluñu coupe mais nawetaan boo xool feet la ay sa jamono de lim final lu bëri na lool te ay sa jamono day ñëw nawetaan du ay question da ngaa ay sa jamono obligé chaque masam final la. Mhm. mais coupe bii nii moom quartier bi dañu ko ñu ngi siy xaar bu baax a baax. ñu ngi siy liggéey ñun final bi ñëwuñu pour feetu dañoo ñëw pour jël si ko. ñëwuñu pour fête supporter pour fête ak yenen ak yenen ak mais ñun pour fête jël coupe bi rek voilà xam tane ñu wax est-ce que ngeen yene favori final bon non nous ne sommes pas le favori quoi <laughs> parce que boo xoolee Aïssa Notaire euh, trois dernières saisons yi bokk na Aïssa bu nga xam perdul sax final 100 pour assuré en final. Mm-hmm. boo xoolee def na ko mille 2015 ñëw jël ko bi 2017 euh, tamit ñëwaat na defaat ko ren gi tamit gis nañ ñu parcours bu mu def notaire ñëpp yaakaar na toog mais ñoom dañoo dem ba am dañoo am expérience quoi sans wax nii mën na jàpp ne ko muy sama question bi xam ngeen ñi ngeen di waaw ñuy gérer xam nañ leen bu baax parce que euh, sans def naa am nañ trois défaites yu nga xam ni infligé nañ ko suñu dur te trois dernières rencontres ñu daje ak ñoom doon nañu fi match de poule euh, en 2015 ñu ñëwaat demi finale ñu éliminé ñu suñu équipe bu gën a rey amoon équipe bu mag noté doon ñu par euh, ñu ñëwaat euh, daaw tamit bu nga xam ne jamono dafa gënoon defarwaat ci plan organisationnel ñëwaat ñëpp di yaakaar coupe quartier bépp daaw la gars yi gënoon engagé wu gënoon motivé wu ñëwaat ay sa noté dooraat ñu par série mu nekk nag lu metti gars yi metti na leen waaw donc euh, le 22 mën nañu ngeen di gisee nag final bu fii ci stade Amadou naka ngeen di préparé match bi yéen ak seen dëkkandoo di ASC Notaire. bon match bi moom ñu ngi koy préparé moom ah, ñu ngi koy préparé bu baax a baax. borom nag mu may ñu ndam ñu ngi koy waaj bu baax comme ni ma la ko waxee léegi léegi rek ñun dirigeants yi ñëwuñu pour fête. bu dee super sax la ñuy dugg pour ñëw football si pour jël coupe bi yóbbul ko koñ ba gars yi loolu lañ bëgg jamono dafa finaalu bi quoi ren moom ñu ngi ñaan daal coupe lañ gis quoi coupe rek sincèrement donc yaakaar ni wax ji leer mu nekk ñaari ASC yi nga xam te ne dootuñu leen présenté si Guédiawaye ah. ñaari ASC yi mag la muy ASC Notaire ak ASC Jamono 2 ñu wara dajé sen finale bi nga xam mëna nañ jàpp comme li mo waxoon au début rek mi finale historique bi nga xamante ñu koy jouer samedi fi ci stade Amadou Barry mu dikk ñak ñàkk ñaari ASC yi nga xamante ni comme li wax rek kenn do leen présenter ASC yu am mbolo lañ machallah donc ñuy jox rek eh, ñom ñaar ku ci nekk jox sa dernier mot sur la non violence surtout parce que tamit ñaari ASC nga xam ñoo bokk benn koñ donc ñu bayyi monsieur Diagne mi nga xamanteni mom mom lañu moom interview woon mu sànni si benn cadre bi nga xamanteni sur la non violence après ñu bayyi bàyyi mort Laay bi nga xamanteni mom fi représenter ci représenté euh, ASC Notaire jamono de mu def sur la non violence donc ngeen jëm ci final bi nga xamanteni tamit mën nañ japp nañ final de dëkkandoo la donc tay bo amoon loy ñaax seen supporter ak supporteru ASC euh, jamono de yi ban message nga leen wax sur la non violence waaw vraiment loolu c'est une question boo xam ne vraiment yàkkamti woon nga laaj ñu ko parce que nawetaan dafa am ben image bu len nit ñi jox léegi je pense que tay c'est l'occasion ñaari dëkkandoo yi jamono ak notaire indi démenti bi quoi parce que mënuñu tok fu nek nga nek nit nawetaan ñu naan nawetaan violence la yàq ay oto toj je pense que tay ji il faudrait que ñun ak suñu dëkkandoo yi ñu won autorité administrative won public yi nga xamné tay ji jii commencé nañu ŋàññ nawetaan commencé nañ ko jéppi nous xamal leen ne loolu foo gis rek am na ay trouble trouble fait. foo gis rek am na ay brebis mais ce n'est pas xam nga li nga xam ne réalité mooy quintessence nawetaan tey jii c' est l' donc je ngi un appel vibrant à l'ensemble des responsables de Diamono 2 de lancer un appel vibrant aux autres responsables de l'ASC Notaire parce que aussi sensibilisation daf si am solo xamal supporters yi yéen seen rôle mooy ñëw animer stade jour, yi ñooy def animation sportive bi dirigeants yi ñëw encadré ku nekk def li nga wara def yalla lu mu dogal ñu xamne loolu la yalla dogal mhm. parce que gënuñu équipe yi toog premier tour hein yalla bu la mayee sutural ba nga ñëw final final moy fête bi egsi la jël coupe benen affaire la donc ñu won aux yeux et aux yeux de l'opinion publique ñepp xamne ay dekkondo mën nañ football té du am violence té inshallah allahu rabbi vraiment loolu dinañ ko dox ni ñu koy waxé non lañ koy doxé mhm. ba jouru match bi mhm. ñu ñëw football ko ci jàmm ak salam képp ko gagné xam nga yalla xam ne loolu ñu xam ne loolu la yalla dogal et puis ñu continuer move on quoi dem préparer ji départemental yi euh loolu mom euh question boobu laa maa ngi doon xaar quoi euh di wax ni mom ñun ñi ngi sensibiliser suñu supporters parce que boo xoolee ASC bi kenn mosu ko sanctionné mosuñu toog ñu ne ASC jamono déwén kat du bokk ndax dafa doon indi ay feeru violence si stade bi quoi ñu ngi dajeen tamit ASC boo xam ne dafa fair play ASC notaire ñoom tamit mosuñu leen dégg si ñëw nañ yàq ay ak wala yàq nañ mas yooyu ñu ngi woo ñëpp daal final fair la nañ ñëw ñëpp ku nekk ñëw si jàmm ak salaam ñëw ñu dund feet bi ku suñu borom may ndam ñu félicité ko waaw voilà donc comme li mu wax rek li mu mujj wax fa terminer terminé muy ñaari ASC yi nga xamanteni ne trois points dur ah ñaari ASC yi fair play lañ parce que tamit li mu wax tamit c'est important ASC notaire comme ASC jamono de mosuñu leen dégg ci benn problème donc yaakaar nañ tam final bi dinañ ko jouer ci fair play et que le meilleur gagne ñi ñaanal ñaari ASC daal ñu jouer ko ci fair play et que le meilleur gagne donc mu néwon fi fii Guédiawaye Infos def déplacement seet si ASC notaire ak ASC jamono 2 seen final bi nga xamanteni ni ñu ngi koy jouer fi ci stade Amadou Barry le samedi 22 donc mu na rek final bu metti bu neex ñuy faire appel ñëpp pour ñëw seen final bu nekk final bu neexoon te zone 2 bu Guédiawaye ñoo koy joué donc mu ne woon seen xarit seen euh, copain Laye Cissé ñëwoon def benn euh, introduction fii si seen euh, stade Amadou bari donc ñu joxe leen rendez-vous si kanam tuuti incha allah.